nag ci actualité bi mooy li ñu nammeeku ci biir semaine bi diggante yóbbante li nga xamante ne moom mooy mbirum ñu gis ni kii di Mansour Faye nekk ci euh, nekk mag ci euh, ma Marème Faye Sall mi fi nekkoon première dame moom nag dafa daal di euh, jote ak ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré mu daal di koy yóbbu ci yoon daal di koy porter mu ko porter plainte nee na daf ko daal di diffamé waaye gis nañ ni ginnaaw bi ñu dajee foofu ca tribunal tribunal dafa daal di jël ki nga xamante ne moom mooy Mansour Faye daal di koy condamné kii di Mimi Touré nag mu ngi laaj li nga xamante ne moom mooy amende noo jàngatee actualité bobu wa d'accord accord lu tax ñu né ça se discute looloo tax ñu nan ça se discute dañ koy waxtaanee. Mm-hmm. parce que parfois dañuy joxé ay xibaar xamanteni déméwul ni man comme non nation bi daf ma poser problème. li nga wax sax déméwul noonu motax ma wax la ko mm-hmm. Mansour Faye ta porter plainte pour diffamation ba paré ñu condamné ko motax tax ma ko wax su wéré mm-hmm. nopi koy dégg wala wér wax su fébré nopi koy dégg wala a wér Mimi Touré mo poster ci page Facebook am que Mansour Faye sàcc la. ci foowu Covid 19 yi. mille milliards yi daf ko luubal. loolu aussi foog ñu leeral ko Sénégalais yi nañu bàyyi di dégg ni que nit épinglé nañ ko par Cour des comptes IGE wala OFNAC rek ñu ne sàcc la déedéet épinglé ça ne veut pas dire que sàcc nga wala sàccoo épinglé mm. maanaam mooy liñ la dénkoon seetlu nañ ci daal am na loo xamante ni jaarul yoon. Mm. mën na bañ a nekk yow. parce que ce la denkon da nga nekkoon ci mais nous ñu gérer ñu ko gérer xeyna ci responsabilité la dafa est ci émission bi am kumu diffamé Zeyna moo ñu xol contrôler ban site la ñu VIP people légui ñu xey rek ñu ne di euh,

ci gëstu pré rapport mooy avant rapport bi ñu mm. gëstu ji waat ko convoqué ñooñu mm. su demee nag ba nga xam te ne rapport définitif bi am na ñu jébbal ko procureur procureur jébbal ko juge ñu convoqué la suñ la convoqué ñi la lii ak lii ak lii soo indee pièces justificatives yëpp mm-hmm. ñu ne la demal sa yoon kon xam nga kooku sàccul mm. soo indul nag ñu ne la ah cent milliards dañu la joxoon kat justifié nga quatre dix milliards yi justifié dix milliards yi fu dix donc c'était juste pour ben éclaircissement mhm. mais Sénégal da ngay dégg épinglé pour Cour des comptes TikTok yeeg ñëpp jël sa photo taf ko sacc la sacc la sacc la té kenn mëno la wax ñaata nga sacc def nañ ko fi Karim Wade dafa sacc xaalis Sénégal dafa sacc xaalis Sénégal alors que musul sacc xaalis Sénégal dañu gis ay bien yo xamante dañ ko ko jox ci biir amende tribunal bobu amende bi la ñu dañu xol bien yi nu mu tollu ñu multiplier ko par deux ñu ne ko li lañ lay amende pour nga fay ko ñëpp nee na dafa sacc xaalis bi alors que amende la ñu multiplier par 2 kon donc ce qui concerne Mansour Faye ak ki nga xamantene ne Mimi Touré foog ñu indi ci ay éclaircissement parce que gis nañ ci ay version yu bëre. Mhm. surtout condamnation gis nañ ci ay version yu bari dem ba ñu ne Mimi Touré mo gagné. Mhm. parce que juge bi nangam sangam. juge bi waxul lool li xew tribunal moy lan jeudi lañ doon def délibéré bi. Mhm. ñoom taxawon nañu ci kanamu juge bi Mansour Faye ñëwul won dafa amoon dëj ay avocat représenté ko ku porter plainte pour diffamation soo neexee mën nga baña ñëw. voilà parce que say avocat ñoo porté plainte ba ñu demee nag Mimi Touré dafa dellu ci waat ci kàddu yi mu bindoon ca page am mu ne moom waxul loolu nee na moom daal dafa ne ni que am na rapport bu ko cité te rapport boobu mu ngi ci place publique hmm. comme Mbaye waaxu lu mu waxoon ci Mame Mbaye Niang ñi laaj ko mu ne dama gis benn rapport ci site internet te bu muy wax dafa ne woon maa ngi ko téye sama téléphone hmm. Mbaye waaxu laa wax nag Mbaye waaxu hmm. léegi chaque semaine da ngeen koy ngeen voilà léegi kii di euh, Mimi Touré ba mu ñëwee mu changé version bi mu doon wax ci biir postam mu indi carnage financier sénégalais yu bari ñu ngi dégg xamuñu lan mooy carnage financier euh, carnage financier maanaam mooy ci li nga xamante ne tolloon na ci mille milliards mhm. mille milliards yi ñu jëfe woon jëbalal ko fonds Covid dafa am benn pàcc bi ñu ci jëloon pour jëndee ko ceeb pour jox ko askan bi dimbale leen ko Mansour fay ci loxoom la nekkoon ci biir loolu mosuñu ne Mansour fay luubal na surfacturation la ñu waxoon maanaam mooy su ma jëndee tonne ceeb bi cinquante mille jamono jooju tonne ceeb mi ngi jar cinquante mille mais Mansour Faye dafa def mi ngi jëndee tonne ceeb cent mille francs alors que jamono jooju tonne ceeb mi ngi jar cinquante mille loolu surfacturation la loolu la ñu waxoon te loolu yaakaar naa ni Cour des comptes réglé na ko parce que comptable bi. Mhm. moo def erreur moom moo def erreur parce que jamono ji muy wax. Mansour Faye bi muy jënd ceeb bi ci Covid bi dix deux mille dix neuf li tonu ceeb bi doon jar prix boobu la waroon def mais dafa def prix bi nga xamante ni ceeb bi yokku na après bi nga xamante ni Covid bi passé na comme tey deux mille mi ngi jar cinquante mille Mansour Faye jënd na tonu ceeb bi cinquante léegi ñi ngi def rapport bi deux mille vingt deux deux mille vingt deux boobu tonu ceeb mi ngi jar soixante quinze mille au lieu que mu def ni ko tonu ceeb. mi ngi doon jar cinquante mille moom mu def ci deux mille vingt ceeb bi ñu ngi ko jënd fële loolu Cour des comptes réglé na ko bu yàgg. bi ñu taxawee nag Mimi Touré bu mu waxee loolu muy carnage financier ci carnage financier boobu nag ni ñu koy définiree ak diw sàcc na du benn xam nga fële dafa noon diw sàcc na. Mhm. Mansour fay ne ko wax ma fi ma sàccee foofu la ko porté plainte contre diffamation comme moom ñëw na taxaw ne carnage financier la wax loolu du sàcc juge bi disqualifié ko teg ko teewut mu ne Mimi Touré na présenté ay excuse am Mansour Faye ci kanamu tribunal bi loolu la juge bi wax. Hmm. kon ku baalu kon du ñu condamné kële. ba pare juge bi delu ci setal Mansour fay ne amul ben scandale wala ben carnage financier bo xamanteni épingler na Mansour fay kon juge bi setal na Mansour Faye taqewul laalewul ci 1000 milliards yi li Mimi Touré waxoon ak nim ko bindé ak nim ko waxaté tribunal bokul kon ñi nan les ministres de Macky Sall commence à tomber xamuñu la ñuy wax. voilà c'est-à-dire que lolu moy manipulation ku ci nek ak ki nga àndal da ngay jema crier victoire mais tey su victoire je crois que Mansour Faye mon victoire parce que sénégalais yëpp jàppoon nañu ko fait ça affaire faire 1000 milliards force contre Covid mais banni de demee ci juge mon midi à di ou Touré waxul ni dafa sàcc daf ko carnage juge bien juge bien le la waxuma la carnage mais nekkul sax complice au carnage. <laughs> lañ ko doon laaj taxewu ci laalu ci kon donc il faut que ñu éclaircir point boobu moytu sénégalais yi di dugg ci erreur par rapport ak réseaux sociaux yi. Hmm. dafa am ay politiciens nag yoo xamante ni dañu am seen ay waxkat ci réseaux sociaux yi li ñu bëgg lañ leen di waxal loolu mooy distribuer wu ci askan bi askan bi babay bay jàpp loolu. dafa mel ni tey c'est sur des plateaux qu'on a vu ci ci instant bi ñu jógee tribunal euh, ñu jot ay appel ñuy joxe l'information ne que kii di Mimi Touré jox nañ ko dëgg ci kanamu ki nga xam ne dafa mel ni tey ma toog fii ma ne Zeyna yaa sàcc téléphone bi. loolu laa bind ma ne Zeyna moo sàcc téléphone bi accusé naa Zeyna. Zeyna porté ma prent pour diffamation ñu dem ci tribunal ma ne juge waxuma Zeyna moo ko sàcc de dama ne Zeyna est-ce que gisoo sama téléphone. Hmm. comprendre hmm. ba ma demee juge ko yaa sàcc ko ne que gisoo sama téléphone laaj aayu loolu bi ma ne ma Tange. Hmm. Zeyna bi ngay laaj sa téléphone jamono bi Zeyna di dugg ci foofu téléphone nekku fa dara nekku fa. wala Zeyna musul dugg foofu noonu la mbir bi demee léegi ñu ne ma nag temps présenter say excuse Zeyna comme nee nga ko ndax gisoo sama téléphone. <laughs> c'est c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça pour que ñu comprendre donc on n'a jamais condamné Mansour Faye Mimi Touré moo soppi ay propos Bim ko sottee soppee té num ko bindé won ak sénégalais niñ ko déggee won mm-hmm. mu dougal fa français di ancrage encarnage financier encarnage financier bobu nak lañ ko néwal Mansour épingler takéwul lalewul mm-hmm. ni épinglé nañ ko ci lii ndaxte Cour des comptes bu mu ci rapport définitif mm-hmm. xam nañu comptable bi mo par rapport ak surfacturation yiñ ko doon ni mu facturé ni mu défé rapport bi ak ceeb bi fu mu doon jar fu ko évaluer du ben d'accord voilà d'accord yaakaar naa leer na démb euh,